Sénégal ah ñoo ngi masawu àdduna yëpp ñoo ngi masawu Sénégal yëpp eh, li xew tey nag ñépp la metti Sénégal ñoo ñàkk sunu papa coon sunu lépp mu nekkoon nag papa sama papa la woon daanaka man ni ma meloon ci moom dafa ëpp biram mi doy na ma seede suma papa la woon suma lépp la woon daf ma daan conseiller ah, daanaka jox ma boîte bi may jouer lu ma ko soxla rek moom day teew moo tax tey am nañ naqar mais dañuy sant yàlla rek te xam ne yàlla bu soxlaa jaam ñàkk waaw. waaw muy gëm sunu bopp am fulla am fayda loolu moom xam naa ko ci moom am fulla am fayda gëm boppam moo tax ci loolu la daan yedd moo tax tey bu demee nii rek ah dañ koy ñaanal yàlla mu xaare ko àjjana suuf sedd ci kawam. waaw waaw comme tiis yëpp rek metti metti parce que parce que chaque jour mën nañu tàggee koo xam ni euh, da nga koy gis chaque jour wala comme li waaja daan wax ne chaque jour ñu tàggee nit te du la saf mais boo bu ñu tàggee ku la jege rek ah sa xol tooy. parce que Papa Thione daf jege woon trop mais ñu ñaan yàlla xaare ko àjjana suuf oyof ci kawam.